salaamaaleykum mbooloo mi bisimilahi rahmaani rahim euh, ñu ngi leen di jéglu yéen ñëpp ci toogaay bi yàgg bi di leen jaajëfal ci wuy bi nga xamante ni moom ngeen wuy si ànd taxaw Mariama am na lu nga xamante ni lu bëri du ma si delluwaat sëñ Balla président président bi ñëw na si ba mu yaatu ak euh, sëñ Ibrahima Gueye dongo bi nga xamante ni moo doon def journée de lancement bi kon ñëw na si lu bëri kon dañuy tàmbalee suñuy kàddu rek ñaanal sëñ Touba sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi te ñu koy teg si loxo sëñ Bass Mbour suñu xarit suñu soppee di ñaanal Serigne Touba sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké suñu yaakaar tey ak ëllëg yàlla yàggal ko fi tam tamu wér lool lool lool ñu teg ko ci loxo sëñ Cheikh Abdou Lahad Mbacké taawam bu baax bi ak sëñ Moutala mi mu àndal di nuyu ba tey sëñ Abo mi nga xamante ne mooy chef de village bi di teg si loxo sëñ Sey di ñëw di nuyu tamit képp kuy jigéen kilifa jigéen ñëpp teg ko ci loxo soxna maam Say Mbacké mi nga xamante ni im na sëñ Cheikh Say Mbacké kon ñu ngi nuyu autorités yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew yëpp maanaam autorité religieuse yëpp ñu ngi leen di nuyu autorité administrative yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu autorité politique yëpp autorité politique yi tamit bu ñu ci citee sëñ Alla Sylla mel na ni wax nañ ñëpp kon ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey nag ñi ngi ñëw wax ci kàddu jigéen ñi nga xam ne mooy kàddu Madiyana jigéenu Madiyana te présidente bi nekk soxna Fatou Ngom méttoo baax yaatu jël kàddoom jox ma ko dénk ma ko man mii kon présidente yi ñu ñuy tàmbalee ci présidente Mariama 1 muy soxna Coro 6 ma nga nee toog ana soxna Coro mi ngi nii di jiite Mariama 1 ana soxna Awa Fall mooy wax moo jiite Mariama 2 soxna Ndey Matindooy moo jiite Mariama 3 mi ngi na le soxna May Fall moo jiite Mariama 4 mi ngi nee toog ak mbooloom soxna Fatou Ngom moo jiite Mariama 5 mi ngi nii toog ba tey moom mooy suñu kilifa soxna Fatou Bey moo jiite madiana Ciss ak mbooloom kon ñu soxna non soxna Fatou Bey ñëw na waa kay kon ñu wax ni ñun dañoo jàpp ne ñun jigéenu Mariana tey ànd taxaw Mariana bu fekkee dafa sosu dañoo jàpp ne ñun suñuy kilifa dañoo wuy suñuy jo suñuy kenn ku ne xam na ni Mariana dañ ko tuddee woon na Marnayaana googu tey jii loolu suñuy kilifa dégg jóg sos kuréel gii ba tey jii ñuy wax tey jii ndox mi yaana madiyaana alhamdulillah kon tey jii ñun loolu ñun lañ ko sosal biñ ko sosee ndax ñun tamit ànd nañ ko ak ñoom ndax kenn ku nekk gis nga ne jigéen ñi ni ñu toogee kenn yëngatuwul kon xam nga ne ñun wàll si nañu wuy si nañu kon ñi ngi ñaan ni nga xamante ni moom la ànd taxaw madiyaana def ci madiya si ndox mi mu def ko ci madiyaana zéro che maanaam madiyaana na set wecc ndax ñun kat alxames yu nekk ñi ngi bale madiyaana ku fi dugg di nga xam ni madiyaana set na mais problème bi nga xamante ne moom la ñu am mooy problème mu génne mbalit mi biir Madiyana yóbbu ko feneen foo xamante ne du ñëwaat si ñun kon nag loolu ñu ngi ciy interpellé autorité yi nga xamante ni ñoom mun nañoo saafara loolu muy le préfet maire ak société humaine IGG ñu jàpp si mbalit moomu ba nga xamante ne na sori biir Madiyana ñu ngi ko doon wax ba tey si mbir sécurité kenn ku ne xam nga ne jigéen da ngay soxla sécurité ñu ñu ñaan yàlla ñu ñaan waa ànd taxaw Madiyana bu ñu jógee ci déchet bii si seet Madiyana ñu jóglu si sécurité bi ndax kenn ku ne xam na ne sécurité fekkee amoo sécurité sax xel du daal te sunu mbaa ci kat niñ ko neexuñu ñun waa jigéenu Madiyana bu ñu jógee si loolu bu ñu jógee ci loolu ñu ngi dem tamit ci mbiru wér gu yaram kenn ku ne xam nga ni jigéen moom bu njabootam wéree borom këram wér doom wér rek mi ngi ci jàmm bu ko boolee ndox boole sax ak set mi ngi ci jàmm kon nag lépp li nga xamante ne mooy wàllu wér gu yaram ci biir Madiyana ñu taxawul ñu ko ba mu mucc ayib ñu ngi ciy profité di nuyu suñu ICP yi nga xamante ne ñoom ñoo fi toogal wàllu santé muy sëñ Lamine Ndiaye ak sëñu ak ak ak docteur Faye kon nag ñu ngi leen di jëfal bu baax di leen woo yéen jigéen ñi ndax kenn ku ne xam na ne kuréel gi bu doxee ku ne xam na ne kuréel gi bu doxee jigéen ñi noo tax bu ñu xooloon bilan financier bi nga xamante ni moom lañ fi def bu ñu xooloon li fi jigéen ñi def. gëm naa ne ñun ñooy man ci kaw kon ñu ngi leen di soññi si ñu ngi leen di soññi si carte yooyu bu kuy mbootaay kuy comité de salubrité maanaam ku yore groupe set setal yore mbootaay yore loo mën a yore carte yi mi fii boo demee sa présidente yi ñu lim dina la jox ab carte di blocu carte nga mën ko di ko jaay sa mbootaay dina la jox ay carte membre nga man di ko jaay sa mbootaay am na ay carte yoo xamante pour social bi la social ku ko dégg mooy dimbalante carte ñaar fukk la carte deux cent la bu sa doole jotewul ci cinq cent man ngay joxe ci loolu di barkeelu kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp ndax loolu kat moo doxal liggéey bi loolu rek moo mën a doxal liggéey bi kon yéen jigéen ñi ñu ngi leen di woo ci cotisation yi na ko ñëpp matale nañ ko booleeg li nga xamante ni moom la ñuy teggi lii nag natt boo xamante ni la kenn du ko teggi waaye sëñ Touba moo lay fay kon nag ñu ngi leen ciy woo yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ndax kàddu yi gudd na baax madame Mbacke mi nga xamante ni moo fi toogal jigéen ñi SEDAF ndax kenn ku ne xam na ni moom mooy jàppale jigéen ñi te jàppale na jigéen ñi Madiyana mais nag mën na gën a yaatu ndax jigéen ñi Madiyana 1 ba 6 ñoom ñëpp ñu ngi nii toog bon na ñu ngi lay woo ci loolu gis nañu ànd bi nga xamante yaa ngi koy ànd ak ñun te ndax ku wax jigéen wax nga développement ndax développement suñu ay objectif ci la bokk ndax ñun dañoo samp kuréel ñun jigéen ñi 1 ba 6 pour lépp loo xamante ni mën na yokk suñu koom-koom te loolu ñu ngi koy mën a jaar ñu mel ni kuréel yu mel ni SEDAF ñi nga xamante ni kuréel yi jigéen ñi la fi toogal di leen di former leen ay métier ba ñu mën a am seen i métiers bopp financé leen ay xaalis ba ñu mën di liggéey xaalis kon loolu ñu ngi leen si woo madame Mbacke ñi ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal mbooloom yëpp tey jégalu ci kàddu yu guddi yi jërë ngeen jëf